wàllu programme yi tamit bu dee wiru mbiru jàng ak jàngal ak tàggat xale am nga loolu dafa nekk loo xam du taxaw benn béréb maanaam dafay dem di méngoog toujours ak jamono di méngoog jataay yi di méngoog gox yi ba nga xam ne boo xoolee sax ci njàngu Sénégal 1960 ba 2000 boo doon xool jàng bi presque jàng français rek ak arabe la woon ak français bu am doole mais dem nañu ba gis ni loolu doyul ci nit maanaam nit du jàng rek di tari mais jikkoom am na solo te boo ne ci wàllu jikko diineem da cee am solo mu am diine nga xam ne diine boobu moo koy won yoon moo koy leeral boo jàngee ba xam suñu ne science sans conscience ñun dañ naan science sans foi maanaam boo jàngee nanga am diine ba nga xam looy def da ko mën a seetu xool ko boo ko defee doo juum bu ko defee 2002 la état dugal éducation religieuse ci ci daara yi pour wax ni xale yi war na leen tàggat ci loolu moo jur école yëpp ñu dugal fa ay jàngalekat yu def arabe mais di jàngale éducation religieuse ñu dugal tamit franco arabe pour xale yi mën a gën a tàggatu ci wàll woowu doyul état bi comme na ma waxee jàng du toog benn béréb rek mais dañoo bëgg xale yi ñuy tàggat yi méngoog jamono. ba ñu tàggaleen leen ba nga xam ne seen wàllu àdduna ak seen wàllu àllaaxira yëpp duñ ci am jafe-jafe loolu moo dem ba indi ñu indi ay daara moderne daara yooyu nga xam ne dañ fay jàngale ñetti at yu njëkk yëpp arxuraan kese la ñuy jàng soog a dugal leneen yeneen façon jàng ci ñeenteelu at donc loolu lépp muy wane lu ñu war a jox ci wàllu diine tey ji bu ñu ñëwee fii ci wàllu Touba ñu war a dugal yu mel nii nag ñu war a dugal kuy Cheikhul Khadim war a dugal lan mooy jàngaleem loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax dafay am solo parce que gis nañu tey jamono wane na ko que war nañu delluwaat ci jàngale mag ñi war nañu jël mag ñi comme royukaay ñu bëggee avancer te yéen déjà yéen a ngi ci yoon woowu wala du man sax yéen ba dama ni sëñ Muntaxa yal na ko yàlla yàggal fii mu ngi ci yoon woowu loolu moo tax ñu naan gis-gisam rafet na kenn du ko naataabale donc ci kaw loolu ñun daañ ci taxaw wàll wuñ ci war a taxawee ba incha allah yàlla mën ci def luñ ci bëgg yëpp yàlla mën ko matal incha allah donc loolu defe naa lu ñu war a wax la war ko gën a dëgëral boo gisee ñu ni modèle loolu la ñuy tuddee pédagogie di model maanaam nit war na am toujours royukaay te royukaay bi ñu koy wax ñun suñu kilifa yi diine moo tax ñuy wax te bu ñu waxee suñu kilifa diine fii ci Touba dañ naan Cheikh Cheikhul Khadim nga jëlaat njàngaleem ñu ne la mouridisme nga xam ne da tàggat di la jëmale ci yoonu yàlla nga xam ne ñun ñëpp loolu la ñuy sàkku donc loolu bu ñu ko tàggatee ci xale yi gis nañu seen taxawaay di gën a rafet bu ko defee xëy na yu bëree bëri bëri door ñu ko dund wala duñ ko dund loolu lu am solo la te dañuy am foofu sëñ jatara wax na ko sànq même ci wàllu taalif yi ci wàllu kii yooyu yëpp tamit dañ ciy taxaw su booba parce que fu mu nekk nguur gi yooyu mi ngi ci fu mu nekk nii booy xool même wàllu langue nationale am na ñu ca dugal muy wàllu lecture xalu xale ni leen tàggale ci wàllu liir ñoo ngi ko def nii waaye loolu programme bu yaatu la ñu tuddee ko MOEPS modèle harmonisé de l'enseignement bilingue maanaam fexe ba jàng suñu làkk yi dugg jël place bu baax a baax ci jàng bi ci ci école yi bu ko defee ñu mën a am nag ay taalif ak yeneen yoo xam ne lépp ay njëriñ la pour xale yi boo jëlee ñu mel ne sëñ Moussa Ka ñu mel noonu jàng yooyu lépp njëriñ la nga xam ne nit ka da koy wax du demee ci wax ba waaye du koy jëfe nga jël xasaay di aussi nga xam ne mën nañ ko traduire en wolof nit ñi di ko xam di ko tari sëñ bi bu la ñëwee ci wàllu saako xam-xam na ko war a sàkkoo nga war a am pas-pas war a ñeme xiif war a ñeme sonn xam ne xam-xam du yomb yooyu bi ñu ci xale yi def naa incha allah mën a am xale ñu soxla pour dire yoon wi ñu jëm macha allah yoon wu rafet la moo tax bañ koy def validation waa ministère ba ñu ñëwee ñoom ñëpp dañoo maasaloo ni lii moom franchement lu rëy la te bëgg nañu incha allah yàlla def ci ndam ñu mën ko yaatal ci réew mi yëpp donc loolu defe naa lu am solo la donc loolu ñu taxawaat ñun di feddaliwaat suñu taxawaay ak suñu jàpp ba lépp mën a sotti incha allah parce que am na ci yoo xam ne dañu koy liggéey waaye ñu ngi koy liggéeyal bu ñu ne carte scolaire Touba ñun ba léegi maîtriser wuñ ko. parce que Touba dafa yaatu bi ñu demee tey ba am kuréel goo xam ne yooyu yëpp dañ ci mën a dox su boobaa daf ñuy dimbale ba ñu mën a xam tey bu nee privé bi ñu xam ñaata école ñoo fi war a nekk wala ñaata ñoo fi nekk yu am autorisation xam nañ ko mais am na yoo xam ne xamuñu ko donc loolu ñoom mën nañ sukkandiku ci ñoom su boobaa surtout fiche boobu ñu joxe pour mën a xam carte bi yëpp lan la fan la école yi nekk ñooñ na leen mën a jàppale lëkkaloo ko ak waa direction bi ba ñoom daañu dëppoog lu sëriñ borom dëkk bi bëgg fii ci dëkk bi dëppoog aussi lu administration bëgg bu ko defee ñu mën am autorisation mën a tàggat xale yi tàggat bu baax donc loolu defe naa lu am solo la ak yeneen ak yeneen ak yeneen defe naa yooyu yëpp incha allah daañu ci mën a taxaw def ci ay jéegu bu ko defee lu ñu bëgg ci fii ci tuubaa ñu mën ko am dama koy wax souvent jatara ma ne ko soo gisee fii ci ci département Mbacké lu ñu fi yebal ci jàngalkat arab amul fenn Sénégal fii am na lu mat ñetti téeméer rek nangam jàngat alxuraan jàngatu arab lu ko waral mooy dëkk bi dafa spécial donc loolu nag war nañ ko mën a jëmmal te defe naa lii ñu jëm nii dañ ko gën a jëmmal incha allah donc yal na ci yàlla def jàmm ba lépp li nga xam ne ñoo ngi koy mbébét ñu mën ci yegg incha allah di féddaliwaa suñu taxawaay ba nga xam ni naal yi yëpp sëñ bi naal ñu mën ci dugal suñu loxo mu waree ak ci anam yi mu mën a nekkee incha allah rabbi ñu mën a egg ci résultat yi. jataay bi tax ñu tase fi tey nag ku ko wax. da nga tudd Cheikh Mouhamadul Mourtada góor yàlla yeneen ko yàlla fayal jàngukaayu azhar yi ci biir Sénégal ak ci bitim réew ku ne teg na ci bët liggéey boobu itam bi ñu koy def noog ñoom moo ko kon ñuy ñaanal di sant Cheikh Mouhamadul Mourtada yàlla fayal ñu ko waaye di jaajëfal nag jëwriñam ji fi ne di Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ku ne gis na ne góor yàlla tàmbali na sos na yaatal na dox na lu bari waaye moom it yokk kon loolu dañ koy teg ci loxob Cheikh Saalih mii nga xam ne mooy kilifa jotaay bi te fii kat mu jàmma Cheikh Ahmadul Xadim di tarbiyati wa takwin lay wax tarbiya nag buñ ko waxee mooy yar ni Serigne Touba doon yare te mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon yare am na ko tagg sëriñ bi ne ko antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa maa fii jëli charwaaka kon fii da barab la boo xam ne njàngalem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu moom lañ fiy jàngale ndax jàngale rek bari na fu ne la am fu la am son nit ki rek ak xam-xam bari na waaye fii nag day ànd ko bi yar boo xam ne day tënku ci ni sëriñ bi yare te sëriñ bi wax nañu ko nee na fa kasaratul ilmi wala wa kasaratul ilmi biduni adabi jaalibatun ilal ada wa taabi kon tarbiya lañ jiital teg ci taalim teg ci takwin takwin mihani loolu tam lu am solo la ci jàngukaay bi ak ci dëkk bi loolu tam dañ ko nosaale waaye ku wax njàngum mi itam mi ñu fi tax a tase tey danga nga tudd doomi Cheikh Mouhamadul Mourtada ñu mag ñu tedd ñoo di xaritam ba di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma kon defe naa ne Serigne Moustapha Diop kàddoom gi ñëw na fu mu war a ñëw ñëw na ci barabam kon noonu la ko toppee ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa waxoon ne daara ju mag ja moo daaree Cheikhul Khadim radiyallahu anhu la fëgg gilin ya mu gën a birax birax mu ngi doon tàkk naka jekk waaye daa fëggewaat gilin ya xambaat taal ngir mu bën gën a bërëx bërëxi waaye ku am sa jum nag ñëw man ko caa jofal dem jofalaat feneen kon loolu mooy mboolem ñi nga xam ne doon nañ yëngutu ci wàllu googu ci yoon wi kon jataay bi seenub jataay ñu dee wax daara yi wax euh, madaris sa wala école spéciale wala école spéciale yi nga xam ne moom la ñuy gàttandoo ñu tere mokkal alxuraan sëriñ moo Guèye mu parcelle moom it danañ ko tudd ñoo ngi ñoom àndoon liggéey bi kon daal benn kuréel yi nga xam ne ñoo fukki kuréel ak juróom-benn yi seq liggéeyub Cheikh Mouhamadul Mountakha bii tey ñoo doon indi liggéey bu am solo bi benn bu ci nekk nag buñ ci tewee da nga naan bii moom mooy bi mëntoon a ñàkk te alhamdulilahi rabbil alamin yëpp seen i liggéey noppi na ba tàmbalee dox kon ñu wane ne sëriñ bi joxe na ndigal lii ñu daal di koy tàmbalee jëfandikoo ci dëkk bi yëpp ak fépp fu soob ndax Cheikh Mouhamadul Cheikh Mamour moom Cheikh Mouhamadul Moutala mi du sàq dafa wax ne bilmustapha lii bana alqudusu madrasatan biha yazulul ada waljahl walkabadu madrasa boobu daf de mooy ñun liñ def muy système wala modèle éducatif waaye ëpp na ci ñeenti miir kon fépp fu doomu aadama nekk te bëgg jariñ mën ngaa jël modèle bi yóbbu ko fa muy ci biir réew mi muy ba ci bitim réew muy ci àdduna bi te léegi inspecteur wax na ko léegi lii dafa war a yaatu ci réew mi ndax liñ def ñun ñëpp xam nañ ne am na lu manque ci njàng mooy ñoom ñu yor njàng mi ak ñun ñuy ja sunu njaboot di jàng xam nañ ne am na ci lu ci màgg loolu nag li koy motali fii la war a jóge ndax cheikhul cheikhuna alxadim radiallahu anhu moo doon xaatamul anbiyaa wal mursalin innama bu'istu li utammima makarim al axlaq loolu mooy njàngale mu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy motali mboolem li manqué woon ci dunduk doomu aadama yi ngir ñu mën a taxawee mission yi tax borom bi subhanahu wa taala indi leen loolee nag fii mooy jum bi mooy moo moo moo mooy taal jàng bu mag bi nga xam ne fi la fi lay jollee mën a yaatu baa ak fu ne kon lépp loo xam ne gis nañu lu nit ñi soxla la ci njàng mi danañ ko ci indi incha allahu taala te nag mu ànd ak ni ñu ko waxee léegi barkeeb ndigalul Cheikhul Khadim ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha te mësuñu fee def dara lu tegul ci ndigalam te moom ñun ñëpp xam ne ñëpp jàngkat la bay tàmbaleeg léegi lu ñu fi mas a bind lu jëm ci liggéey bi yëral na ko boppam lu ñu fi mas a defit xalaat ba day juuti ci moom mu joxe ko wala ñu xalaat ko gaaral ko ko ba mu rafetlu ko jéego bu ñu ci dox dañ ko koy indi te da koy jàng mas am fu ma doon yónni ci ab ab am ndaje mu xewoon wax ma ne am naa juróom-ñetti at yoo xam ne yër rek laay def booba nag damaa jàppale ne lu ma gis rek war naa ko yër juróom-ñetti at bu jàng ba am xam-xam liir ko mooy su waxee lu jamono ji liir liir kat bu mag la te ba fii mu ne day jàng ba fii mu ne loo bind jox ko da koy jàng kon borom xam-xam bu mag boobu bëgg xam-xam noonu fonke xam-xam noonu waaye fonk waroom xam-xam yi noonu jox leen daye bi mu leen jox ko fi léegi ba mu leen tàmbalee taral yàgg na boobu ay kilifaam ma fi ne dama waxoon ne sama kilifa dama koy bàyyi ak boppam bàyyi ko sama bopp waaye ak bëggam xam-xam ak xam ne loolu bëgg-bëgg ay kilifaam lañ tax nañ jéego yëm ci daan jox ñëpp gis nañ ko loolee nag moo ba dëgg ba démb rek barki démb rek am na ndaje mu amoon ca Ndakaaru ñu jox ko fa raaya wu mag woo xam ne dañ koo terale li nga xam ne def na ko ci xam-xam ak liggéey bu mag bi nga xam ne def na ko tey jii lañ ko ko bëgg a yóbbu tey incha allah taala kon ñuy xam ne moom loolu rek mooy bëgg a bëggam waaye moo doonoon rek istimraar yi moo doonoon wéy teg wala yokkuteg li nga xam ne mooy doonoon liggéeyu Cheikh Nal Xadim radiyallahu anhu te njabootam gépp nekkoon ci moom nag mu ñëw jëmmal ko ci jëmm bi kon jataay bi tey loolu la doon teg ñu ngi leen di sant leen gërëm di jox nag kilifa gi ni ma ko waxee borom jataay bi Serigne Saalih waaye nag ku fi toog tooge fii jataayu Cheikh góor yàlla Cheikh Mouhamadul Murtada ci jataay bu mel nii ak liggéey bi mu ci def kooku moom mooy borom jataay waaye mooy sunu mag itam mooy sunu kilifa te yoonu murid yoonu kilifteef la yoonu ndigal fu kilifa toog ñëpp toog ci gannaaw loolu sëriñ bee ko def ci noonu te sëriñ ñu ko bañ te nañ ñu di ko jëfe te fas yéene ci wéy ba faw te ànd ci mbir ci ak bànneex waaye nag jataay boo xam ne itam njabootug Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ña nga fa ci lu mel nii kon loolu ndokk sëriñ Moustapha bi nga jëlee jël wax ci wax ci rafet yooyu waaye nag jataayu xam-xam ndaam mooy daara ju mag ja waaye Gédé waaye nag Longhor waaye mboolem rek kër si Habibullah kër Cheikh Chouaïbou formation professionnelle bi ñu doon wax léegi fu ma ko tuddee dama naan ni dem Daaru Rahman Cheikh Abdoulahi borom dër li ñu tuddee léegi autosuffisance moom ay jamonoom souveraineté la doon wax bu fi nekkoon nag yàgg nañ ci kon am na ko wax léegi ne nañ dellu siwaat ci njàngalem sunu kilifa yu baax yi buñ ci tënkoon nag ni Sénégal day joxe day joxañ di wane yoon bi waaye kenn du ko woon yoon bi ndax lépp a ngi fi kon nañ dellu siwaat foofu te xam ne ëllëg dynamisme wala oto wala li nga xam ne mooy doxal waxuma ne Afrique waaye ci àdduna bi Afrique la war a jóge waaye lii suqali Afrique suqali Sénégal Touba gi la war a jóge te Cheikh Mouhamadou Mountakha teg na fondement bi kon nag liñ ci war a rek mooy tabax ci kaw te jéem a dox te laxasaayu waaye loolu mu wax ne ba mu laal suuf ba mu laal suuf ci wàll yépp nag muy liggéeyu Cheikhul Khadim bii radiyallahu nga xam ne lépp a ngi ci mooy lislaam mooy alquranul karim kon bu dara laal suuf kenn ku nekk ci noonu nag na jàpp ne moo war a gën a taw na jàpp ne loxo moo war a gën a taw loxo bi taw nag dañ koy waajal te loolu li ma ko waxoon ci njëlbéen bi mooy ndaw ñi nga xam ne xéewal la gunu borom bi subhaanahu wa def mu doon jàngukaay boo xam ne itam sëriñ bi ba mu koy wax daf noo appaloon ñetti téeméeri at ba may moom nag dama naan ko tayyibal jadd bi yooyu sëriñ bi wax tayyab tali sëriñ bi wax na ko fa fa baree bari nga xam ne moom amul temps xamul temps xamul espace xamul espace dafa feeñ ci liggéey bi at mi matagul waaye fi mu nekk nii fi université yi gën a mag toll foofu lañ toll kon sëriñ bi lamal nañu ko ci suuf jëm kaw dañoo fekk fi àdduna bi toll ci xam-xam ñu xool la ci am njariñ la ci gën a baax ñu tàmbalee foofa di wut nag ñun luñ ci yokk bërki démb rek lañ jot bataaxel bu jógee ci jaamiatul azhar université al azhar bu mag ba nga xam ne ku ne xam na ko junni atam topp ñu jox sëriñ bi bataaxel wax na ko noppi na ngir jëflanteeg yow ci yépp anam kon loolu bu ñëwee ñun duñ tàmbalee fañ tàmbalee woon te junni at di dox fañ toll la ñuy tàmbalee xool la ci yitteel lañ ci soxla waaye di wut luñ ca dolli noonu ñu dem rek di jëli di indi de déedéet di Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñëpp ko soxla fépp la mën a jëriñ ñëpp ci am am wàll itam ndax moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jàngale fépp la war a yegg loolee la ñu fexe nag mu yaatu baax ci àddina bi waaye fu lu baax ne loo xam ne soxla nañ ko fii ñu jëli ko indi ko yóbbu njabootam itam ñu dem fu ñu war a tàggatoo ñu ñu tàggatoo fa bi ñu ubbeeg léegi am na fi bu ma jëmul lu jege juróom wala juróom-benn yoo xam ne def nañ seen soutenance su thèse doctorat te bi bi bi liggéey bi tàmbalee ci ñeenteel yi lañ inscrire amoon seen inscription ngir wéyal seenum jàng ba tey noonu la ñu ñu bari ci ñu nekk fii jàngoon nañ ba jàpp ne sax ñu ngi jëm ci mag waaye binduwaat nañ di jàng kon rawatina tout tànk yi nga xam ne nag ñoom dañoo soog a war a doon meññat mi nag ëllëg nag ñu war a taw nag liggéeyub sëriñ boobu yi ba du laal suuf ka shajaratin tayibatin asluha thabit a farha fi sama tuuti ukulaha kulla xiin bi idni rabbiha ñooñu ñooy doon yi nga xam ne ñooy law nag ci àdduna bi fépp fa xam lu am njariñ nekk xam-xam bu am njariñ nekk bu dëkk bi soxla réew mi soxla ko ñu jële ko indi ko ci jàngale Cheikhul Khadim bi mu doon taal bi ku am sa jum ñëw jafal ci yóbbu taalaat feneen ba mu daj àdduna bi asalaamaaleykum